lan la doomi jàmbur bi lu mu leen def doomi jàmbur bi lan la leen def dafa am dekk bo xamanteni ne amul loi est-ce que am na dëkk boo amul loi prêtre yi nek fi au niveau de la France ak ñoom seen kenn musu décerner ay passeport diplomatique pape bi nga xamantene sama toog au niveau de mo mo fi représenté euh, euh, chrétiens yi au niveau de Rome muy muy Italie yoro passeport diplomatique yéen ngeen bugg a nek biir senegal xeyul len ben sénégalais amul len ben sénégalais njëriñ amul len ben rapport plus mais nga boo leen di indi sénégalais au contraire sénégalais ñoo nek à votre service depuis sen juroom ñaari maam di len dundal di dundal sen jaboti di len defaral. yéen ngeen ci am seen kër yi rafet yi di ci dawal seen oto yi rafet yi di ci takk ci xale ya gën a rafet seen doom yi seen jabar yi seen mbokk yi di ñu narge ak ay takkaay or ci kaw xaalis sénégalais yi bu ñu leen di jox yën la ñuy gis ba ca ndar kàmm ñu génnee ay malatu xaalis sénégalais tere leen faju tere leen jàng tere leen formation tere leen xëy tere leen gontu tere leen am ci ndox bu baax bi ñu ñëw di leen ko jox doo leen ci ruus ci mbéj di ngeen koy nangu ngeen ci kawam ngeen di toog di def ay conférence de presse di laaj xaalis sénégalais di leen dëgg sénégalais di leen dëgg bu ñu waxee ñi ne seen maam yi ñoo ko liggéey seen liggéey maam yi lañ comme si ñun suñu maam yi dafa ñu fi woon dara ñoom dañoo tëdd ñu nelaw yàlla seen maam yi def dara te boo demee xool ci histoire Sénégal amul fenn fu ñu la newoon nekk ne Sénégal fii la doon xare fii la xare amoon diggante français yi tubaab yi ak ak nit ku ñuul yi musut a am seen histoire purement inventée esclavage moom amoon na. nasaraan yi ñëw jënd fi jël détourné fii ay nit jël leen def leen ay sëriñ taaj leen ci benn bras woo leen ay bisib ci biir loolu ñii ñoo ci jàppa yooyu ñi leen di jàpp di leen takk di leen yóbbu ci biir jaay leen loolu amoon na ñu dem dem dem ba ñu dem ba kër sëriñ yi amatul ñëpp daw parce que da ngay xam ne que boo demee kër sëriñ boo moytalee ñoo jël foofu yóbbu la dem takk la ci biir bato yi tubaab yi ñëpp daw ñëpp daw kër sëriñ si ñi toog ci si yàgg ñu ne xaaral ñu créé benn phénomène muy muy fecc man du luma inventer dé de dans les archives de Nantes concernant l'histoire du Sénégal surtout bo leen bo leen bëggé xam vous regardez les histoires des des des comment dirais des maisons maraboutiques comment ils ont été fondées dem leen au niveau de Nantes wala ngeen laajte ku dëkk Nantes mu dem au musée de Nantes mu dem mu xol les archives mu yónnee leen ko di ngeen di ngeen xolal di ngeen taf seen loxo sen jëmeñ di ngeen taf seen loxo sen jëmeñ

Gabon mo nangu Ghana ak Senegal, ak Cap Vert ak Cap Vert Xol nañ ko ci histoire de l'esclavage dinañ leen ko wax Bo fa joggé Martinique yaa deug. lañ doon jaar aw fay nuy naa Ma maa jibel nuy naa beure beure Aïcha yéen deug. dem len nante nga laaj ñi ku dekk nante bo len xamee ku dekk nante na dugg ci archive ñu wax leen ñu génneel leen les archives concernant comment ces maisons maraboutiques ont été créées dinañ leen génnee archives yi leer boo ko jàngee ba pare da ngay jël sa loxo nga taf ko sa gémmiñ da ngay naan non c'est pas possible di nga bëgg a jël jaas yi nga jël fetal nga dugg ci kër sëriñ yooyu commencé di rati si seen ndey melentaan boo ko fekkoon sa ci bunt ci biir kër ji sa doo ko bàyyi mu dund ñu leen di use tubaab yi dem ñu nomee leen ñoom ñu toog créer seen seeni i seen i seen i seen i gang seeni seeni seeni seeni secte de gauche à droite ku ci nekk ñu ne la gérel fii gérel fii gérel fii gérel fii gérel fii gérel fii ñii ñu may leen ñii ñu may leen ay ay ay ay ay jàkk jumaa ñii ñu may leen ñu may leen kar ñu may leen kër noonu lañ ko defee paacoo moo tax koo ci gis day naa ne que moom moo moom quartier ay quartier lëmm ay nit jël ko euh, di ko di ko di ko moomale seen bopp jël ko def ko seen titre foncier bopp a Bruno nuyu naa la bu bëri bëri Sylvia Toby merci beaucoup partagé leen booy wax dëgg nit ñi du ñu bëri mais na nga jël yàlla na nga am doomi aadama nag bu doon ñaar ñoo lay seetaan sax moo gën amal yàlla na tamit ni may wax yàlla laa ciy xool yàlla laa ci ragal du doomi aadama sax gën yàlla laa ciy xool du doomi aadama dama bëgg a toppatee écran bi Linda Sara merci beaucoup Abdoulaye Sow merci. bay wañu ne la da ngay lii da ngay fenn yow da ngay diñaat da ngay nangam du lu ma inventé képp ku bugg a xam la réalité de soi-disant ces maisons maraboutiques là nan la ñu sosoo ban collaboration la ñu amoon ak tubaab moo tax man du ma leen respecté ba abadan daay man man du ma leen respecté ba abadan man Aïssatou Anne Ndiaye <laughs> nuy naa la nuy naa la grande sœur Aïssatou Aïssatou Anne Ndiaye merci beaucoup man duma leen respecté dama leen xeeb sib leen mere leen ngir liñ doon def collaboration bi ñu def bi ñu defee loolu ñu joué sa rôle yi ba nii ñu daw leen tubaab yi duggaat ci jeu bi ñu ne leen léegi ban pexe moo ñu fi defee parce que soxla nañ encore ay doomi aadama ñu ne ñu indi fecc ñu dem uti seen i géwél jamono yooyu jamono sikkoo moo amoon ay ay konting xaw ma ndax xamoon ngeen ko riitu yooyu riitu ak ay lekkat yi ñu doon kii noonu gis ngeen bongo maane ngeen di gis nii bongo du tey lay commencé bongo dafa yàgg bongo lu yàgg la bongo moo yàggal moo jiitu sa sabar moom ak ay konting ak ay sikko ak ay flûte moo amoon ci jamono yooyu ñu ne xaaral ñu jaalale ko ci ay fecc ñi commencé nag ñiy bàyyi gars yi di organiser ay fête tubaab yi di leen naan mën ngeen organiser ay fête commencé di leen créer loo ay fête villageois yi fu ñu doon lakkati ci àll bi ñu daan commencé di daan génn bu fekk jotee ñoom yëpp ay génn si ñoom fecc bi fu mu gën a neexee si la tubaab yi di jóge fële ak daw ñëw ak seeni fas yi encercler leen di commencé di leen en encercler commencé di jàpp di takk di nga gis benn cheval benn tubaab nekk ci kanam mu takk lu toll fanweeri esclave nit ku ñuul muy góor muy jigéen ci ay buum dañuy indi ay buum di leen takk di takk. di takk bu ñu takkee bu ñu takkee ci baat bi ñu delloo buum bi ci sa ginnaaw ñu takk ko ci sa ginnaaw noonu la ñuy defee tamit ku ci topp ci yow noon lañ koy defee noonu lañ koy defee noonu lañ koy defee génnee leen foto yooyu génnee leen archive yi génnee leen photo yi génnee leen archive yi yéen ñooñu di tàggat seen maam yi génnee leen loolu lañ fi doxalan Sénégal en dehors de en dehors de suñu seen maam yooyu ngeen di tàgg géwél yi ñoo jëloon deuxième position ci jamono tubaab ci jamono tubaab yi fii ñu jël ñenn ñi ci géwél yi def leen ay buur def leen ay buur li ngeen di dégg le roi nangam nangam le le le le roi nangam nangam man man ci buuru nangam laa jóge ci buuru nangam laa jóge créé ay buur buur yooyu loolu moo ko indi buur yi ñuy seppi la ci biir géwél yi def leen ay buur ne leen ni que ne yéen représenté yéen représenté seen secteur bi yéen war a mun a dajale fii ay doomi aadama jël leen def leen ay buur ñëpp war leen mën a ñoo obéir village bu ci nekk ñu tànn ci kenn ñu ne ko yow yaay buur moom moo indi affaire de buur yooyu buur yooyu dem leen ngeen xool ci jamono yooyu ci jamono tubaab yi dañ leen may tubaab yi ñoo leen joxoon comme ñu ngi doon liggéeyal tubaab yi di doon dugg ci village yi gën a reculé comme xam village yi mun a dugg ci village yi xam fu seen mbokk yi di doon laqatu ji mbokk nit ku ñuul yi tubaab yi jox leen ay fas jox leen ay épée may leen ay tenue ay yére moo tax boo leen demee xool ci histoire bi ñuy jàngal si suñu soi-disant suñu buuru Sénégal yi koo ci xool di nga gis ni que ni dafa amoon benn sorte de jàllaabe lañ ko doon may may ko sorte de caaya ak ay bot te jamono yooyu tubaab yi ñoo daan sol loolu il faut nga collaborer ak ñoom ngay liggéeyee à leur service nga nekk à leur disposition pour ñu mun laa jox vêtement yooyu ñu mun laa jox yére yooyu nga sol ko man histoire laa leen di wax man nekk ma fii di leen ja di leen wax loo xamante ne day fake histoire dañ leen di jàngal di leen ko gëmloo

histoire Sénégal moo dubut histoire Sénégal lu dëng la te buñ la koy wax sax yow boo doonee nit nga doon nit ku tey ngay déglu boo ko dégloo ba si yàgg da ngay xam ne que ne lii ay fen la yenewul maanaa ay fen la mais yenewul maanaa boo doonee nit ku tey dangay xam buur yooyu lañ doon habillé may leen ay yére comme lu ñu mayee seen sëriñ yooyu yére nekkoon au service du gouverneur may leen ay yére di leen jox ay tissu ay rouleau tissu yi tubaab yi da doon jële fii di ko indi may ko suñu yi di dem jënd ci loxo arabe yi seen jàllaabe yi indi ko jël jënd ci ay paquet paquet indi ko ñoo defaral leen te distribution bi la distribution se faisait au niveau de Saint-Louis mooy seen xaftaan yooyu ñu doon sol yére ya loolu arabe yi ñoo ko moom c'est des c'est des vêtements c'est des c'est ah de de de des arabes makka commerce boobu foofu lañ ko doon defee Arabie Saoudite ñoo ko ñoo ko daan jaay ci jamono yooyu c'est des pagnes tissées à la main tisserands yi ñoo ko daan defar arab yi ñoo daan jaay jaar xaftaan yooyu te ba tey ñu ngi koy jaay mais dañ ko moderniser bu njëkk ba dafa yaatu woon loxo yi yaatu benn loxo bi rek yow mun nga koo dagg nga def ko zip ngi indi ko séddale ko seen maam yooyu tegal leen ci cap muru kay bi ma cap cap yoyu tuba bi ñoko mom moom ndaxte fii dafa daan sedd fii Europe dafa daan sedd ñu soxla won cap yoyu diko don tek sen kaw cap yoyu biñ ñu ko mayee suñu suñu maam jël lolu tek ko sen kaw buñu solé sen seen xaftaan yooyu ba pare ñu tek ko sen kaw à 40 degré ñu ne ñoo téegal gaynde ñenn ñi dem ba ci ba ci yag sa ñu jël ko ñu def ko sa style vestimentaire amna serigne yo xamantene fa lañu jaar ñu jël ko def ko sa ay style vestimentaire parce que dañ daan gis sen baye di don sol cap teg ci kaw xaftaan te xamuñu won kapp yoy fan la jóge woon tubaab yi ñoo ko jële depuis première guerre mondiale ba deuxième guerre mondiale dem la ngeen xol jamono Hitler ngeen xol ci jamono ancien combattant yi ngeen xol ci jamono dogoli Gaulle yi ngeen xool les anciens tirailleurs yi lan lañ dan solo ñuy def distribution bi au niveau de Saint-Louis le gouverneur de Saint-Louis comme moom moo la liste de tous les personnes yi mu aplacé de gauche à droite mo xam gëbe lii la moo xam buur yi la moo xam les sëriñ la ñooñu yëpp moom moo daan def la distribution ku ci nekk moom da lay kii buur yi ñoo amoon buur yi ñoo amoon fas parce que ñoom ñoo xam ñoom ñoo dëkk ci village yi buur yi ñoo nekkoon ci village yi côté Bawol yooyu côté ba côté Saalum affaire yooyu ñooñu ñu jox leen ay ay ay cheval jox leen ay bot jox leen ay buum ñoom dañ daan dem chaque semaine bu ñu demee dem dem dem fu mbokk nit ku ñu laqatu ci ci biir àll bi. dañ lay dem japp indi la yew di nga gis ben bour mu tak lu tollu lu tollu cent esclave mu indi ko ni nga gëna bari bëri rek sa yi di gëna yok tuba bi di la gëna naw buñu démé buñu japp japp japp japp bo amatu ñu dañuy japp yéne nga dëgg ñu bari daw traverser fleuve Gambie bi dubu Casamance ñi ci bari waaw dañoo daw traverser fleuve bi dem lakkati ji côté Casamance parce que xam nañ ne que bu ñu duggee Casamance foofu dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy rëcc dañuy rëcc. ñu rëccut ñi dem la ngeen xool sur les plaques au niveau de au niveau au niveau de au niveau de euh, Gorée île de Gorée les plaques là avec le nom des esclaves yi nga xamante ne jaar nañ fa. kees bi ngeen di gis nii c'était le marché des esclaves. Thiès bi ngeen di gis Thiès ñu ne benn gaar xaw ma waree ba Thiès moo nekkoon marché des esclaves Thiès foofu la ñi dëkkoon ci secteur bi yépp au côté de nord da ngay gis ku ku yeewu doomam wala mu takk mu takk mbokkam nijaayam wala rakk rakkam wala rakk papam wala lu mu munti doon mbokkam mu takk ko ba mu dëgër wala dëkkandooram mu jàpp doomi dëkkandooram bi mu takk ko ba mu dëgër yeew ko dox pendant des semaines et des semaines voire des mois pour ñëw ci marché boobu ñuy naan marché Thiès bi di fa jaay di jay mbokam créer marché esclave à ciel ouvert ci bir Thiès ci jamono boobu seen nyonyo yooyu ngeen di tàgg ngeen ne ay ay waliw lañu jaaga ñoo clipité dañ day dañuy dox ci fil courant dañuy def li dañuy def ni yéen a ngi dëgg ñu ngi won fi ñi ngi don dund ñi ngi don gis loolu fa nañ ko won sen jamono la mais munu ñu ci won wax parce que ñom mi seen jëmmu bopp ñi ngi doon def lu raw loolu mbubboo diiné l'islam créé des daara daara daara seen biir kër ni ñi ñëw nar la ñi pour ñi jàngal leen pour duggal leen ci diiné ci diiné l'islam defu ñu leen lolu bo ñëwee nga ne da nga ñëw jàng ci xam-xam xam-xam l'islam ñi téye la fa téye biñ la fay téye non téye ñu la fa pour jàngal la pour transmettre la leur savoir de l'islam nga ñoom ñom ñoo ñu mokal ñu won le plus instruit ki nga xamante ne que daa jàngarnu ba mu mokkal mën alquranul karim mooy Cheikh Omar Foutiou Tall daaray lislaam boo ko bëggoon a gis Casamance ngay ñëw pakaaw ngay dem jàng deuxième daara bi Fuuta la newoon ñi nekkoon Fuuta tamit bu ñu mënulee foofu yëpp doyu leen Mauritanie lañ daan dugg parce que Mauritanien dafa amoon dafa amoon ay ay ay ay ay ay arab yi yi nekk ak côté Maroc ak ñoomi seen ci jamono yooyu balaa balaa muy doon Maroc yi dafa amoon ñu fa jiitu woon marocain ñoo daan ñëw di doon transmettre ces savoirs la ñaari daara ñaari daara ñaari yooyu ñoo amoon Casamance la benn bi am jàkk yooyu fi ñuy naan noonu pakaaw yéen a ngi dëgg. foofu la nekk yéen a ngi dëgg jàkk yaa ngi foofu yoo xamante ne que jàq jàkk yooyu ils en ont plus de cinq cents ans ñoo jiitu seen juróom-ñaari maam yooyu yéen a ngi dëgg judd jàkk yooyu yaa ngi foofu di doon jàngale lislaam portugais yi ñëw nañ ba jóge fi mënuñoo tas daara boobu mënuñoo jàkk ñoo yàq foofu mënuñu amuñu ci benn esclave bu ñu mën a yóbbu anglais yi ñëw nañu mënuñoo yóbbu kenn français yi ñëw nañu ñoo yóbbu kenn mais yeen nor jaayante ngeen seen biir ba ngeen jeex tak bi tuba bi démé ba ngeen commencer réclamer seen indépendance si ngeen def seen réunion bobu ku ci nek ngay laaj yow sa récompense dal lañ lay récompenser parce que bu ñu demee noonu tubaab yi demee noonu bàyyi leen nonu yeen da ngeen di gëlem da ngeen di rire est-ce que ci li ngeen nekkon da ngeen ci continuer tuba bi ne la ku ci nek ci poste bi nga nekkon continue ci mais légui da ngay liggéeyal pour sa bop nekoto di liggéey pour ñom tuba bi mo waral sen maam yi continuer ku ci nek ñi inventer la ñi ne la xaaral ñi inventer la ben histoire boo xamante ne ci doon ngay japp ah, pour les futures générations à venir bu ñu ñëwé ngeen koy jël diko rak diko len ko raconter di len ko raconter en bruit diko duggal ci sen bop yi di len defal lavage de cerveau di len ci endoctriner pour jéem len ki ñi bu ñu démé ba ci biir comme c'est des peuples yo xamantene ne que ne sont c'est des illettrés yéen a ngi dëgg. bugguñu dem jàng école dañ leen di koy jaarale ci ay daara ñu leen koy jaarale ñu ci bëri woon bu ci njëkk ba ci daara la ñuy jaar te ci biir daara boobu ba ñu demoon wala que ñu jàngal leen yàlla ak yonente bi non ay jaar-jaar maam parce que dañoo bëggoon histoire boobu jaar ñu jël ay géwél encore même géwél yi jël leen dugal leen dans la danse ñu ne leen kaay leen ngeen tamit ngeen jàpp affaire yi parce que yan la ñuy woo ci njënte yan la woo ci mariage yi yan la ñuy woo ci manifestation yan la ñuy woo fépp kaay la ñu dugal leen ci bagages yi ñu créer des des événements lu mel nii des cultures culture xeetu nangam culture xeetu nangam culture xeetu nangam bu événement yooyu xewee ku ci nekk nga génn gëwél li ñoo toog di tagg ngay gis biir ci biir ci biir ci biir woy yi moo waral ñun suñu gëwél yi Sénégal yi mënuñu woy amul sénégalais woykat boo xamante ne toog nga inspiré wu fekk doo tagg sa morom doomi aadama te pourtant tubaab yi fii dañuy woy américains yi dañuy woy da ngay dëgg ñuy tagg ay nit duñ ko def seen yoon neew ci dañuy génne woy boo xamante ne que ne ça parle c'est de la poésie yow boo ko dégloo di nga ko njëriñoo da lay dugg tellement que ne da nga ciy jënd Bob Marley woy na fi ba mu jógee fii da ngeen dëgg mu woy fi maamam wala mu woy fi yaayam wala mu woy fi keneen non non day tagg jigéen di tagg di di di di encourager der nit ku ñuul représenter der mu nit ku ñuul partout fu mu dem remercier doomi aadama nee leen gëm leen seen bopp jóg leen ngeen taxaw jóg leen ngeen fighting pour seen raay ci yenn parce que xamone na nek que jamono dina ñew tuba bi ñom li ñu defon ba ci suñu mami dinañ ko bëgg a defaat encore ça sera une autre esclavage eh, eh, eh, esclavage euh, d'esclave moderne bi ñu wara ñoo créer te bu boba technologie yi dinañ ci nek yeen di ngeen ñin dinañ mëna défendre suñu bop mais sénégalais ba léegi 70 yi ba léegi dañoo dof dañoo do paral parce que jànguñu c' des albafta ñi ci xawa xamé tuti may ñi genn dugg ci biir Europe ñoo émigrer si commencé di lak tuti français. italien ah anglais ñu ne ñoom téegal nañ gaynde parce que xam nañ parce que dañoo ñëw balaa ñu leen di jox kayit bi tubaab da leen imposé pour ñu dem làkk seen làkk bi bàyyi force balaa ñu leen di jox kayit ñoom ñoo nekk fii di rey nii ñi ñoo nekk di rey nit ñi li ngeen bëgg a jël noonu def ko seen moomeel bopp mënul nekk seen moomeel bopp parce que li Sénégalais yëpp moomee la amul maamu kenn buy yeewu biir Sénégal ku yore titre foncier biir Sénégal. bu amee nañ ko génne du am amul benn dëkk wala benn quartier bu nit di bakkoo dinaa nekk le titre foncier bi man naa ko moom maa ngi gis temps yi yëpp lébu yi di génn tamit sol seen i grand boobu def seen i seen i di génnee sa doom yi ak seen sët yi pour ñu génn ñu def conférence de presse pour attaquer Bassirou Diomaye ak Ousmane Sonko ci wàllu ay suuf dama leen di laaj yéen yooyu yan suuf ngeen nekk di réclamer bi ngeen moom ban suuf ngeen nekk di réclamer bi ngeen moom bu dee quartier bu ci nekk biir Sénégal ku maamam njëkk a dëkk ci quartier boobu moom moom suufu yi fa nekk yëpp da koy jël mu defaree ko titre foncier boppam kon ñun suñu sama maam moom Bassène quartier bu mu nekk noonu moom dina ko doon moom maamu keneen noonu maamu keneen noonu maamu keneen noonu parce que bi ñoo na man bi ma juddoo dañ ma xamal que ni Pa Kéba Joolaa Koli di sama goro maam bu góor bi ndaxte doomam jigéen bi ñuy naan Fatou Fatou Koli kooku la takkoon yéen a ngi dëgg mooy premier habitant Goubi Ngana Papa Keba di Ndine Dramé doon deuxième habitant bi Pa Thierno Ousmane Ba doon deuxième yaa ngi dëgg sama maam di Alaaji Ba Danso doon moom tamit doon quatrième yéen a ngi dëgg après ainsi de suite ñoom dem ba ak ñoomi seen daal li c'est tellement long mun naa fi lim lim lim lim du jeex mun naa leen téye ci loxo ma ne leen sama maam kii moo ko jox mu toog moo jox kële mu toog moo jox kële mu toog moo jox kële mu toog moo jox kii mu toog moo jox kii mu toog moo jox kii mu toog